di leen ñaanal gudd fan ak wér yal nañ ko yàlla defal ñun ñëpp li ñu bëgg yal nañ ko fekkee te tal waaw buñ ko fekkee yal nañ ko tal ci barke Seydina Muhammad waaw politique de man mënuma wax bu baax nag waaye yàgg naa ci Macky Sall li mi ci ñi ko ñi ko ci njëkk nekk ci boom ci laa bokk boobu lañ doon cotiser dem dem ci ba maa moom fii ci koñ man rek maa fi doon jóge di dem di ñëw boobu ba léegi keroog ba ma ko mutilé ba ca suba ba ca guddi ga keroog sama sama doom bu góor gaañu ci ci kii yi dama mutilé ba pare lekk li may mutilé yëpp booba booba maa ngi wax fii camp ci militaire ji ñi ñi ñi kii ñi reyoon boobu li ma toog di wax yëpp ndeke boobu dee na te yëguma ko waaw waaye ku taxaw sax jaale ma ko am amul waaye ma di ci topp di ci topp dëgg yàlla buggoon ko lool macha allah moo tax nag ma ma kii buggoon a bàyyi politique sax waaye nag sama alaaji bu ñaawul bi fu mu dugg danaa fa dugg bu ma dugg la woon danaa fa dugg macha allah lu mu bëgg bëgg naa ko ndax daf maa bëgg yërëm ma wax jëlee ma fu bëri nag waaw ku sa kii jëkk a nga yoroon njabootam gi munu munu munu ma koo fay yàllaa ko mën a fay yàlla ko fayal boppam ci barke Seydina Maama waaw maa ngi ñaan nag bëgg naa soobu naa ci tamit damaa dañoo am ay groupement tey fii bu ma ko teeloon a wax xam nga dañoo damaa wóorutoon carrément waaye kon groupement jigéen ñaa ngi nii toog ku ci ne ñu ngi job seen groupement te fu ma dugg damaa yàgg ci koñ bi boobu la tisegul fii ba tey maa ngi fi te yaakaar naa defoo fi dara lu ñaaw ku ma ne ku ma ne nii dina dina ma top waaw dama fi doon mitin de waaye dama bàyyi woon nag waaw kii ni muy doon mag sama xarit sama sëriñ la sama xarit la wax dëgg moom may fekk si sax waaw waaw waaw waaw te dafa yor daayira moom moom it yor na daayira xam ku yor daayira du caaxaan moo yor daayira bi mooy magu sëriñ bee ngeen di dem bu sëraa kii mooy magam dafa doon jigéen rek waaye kii kilifa la waaw macha allah kon nag maa ngi ñaan li nga suñu gone yii binta mi doon wax ak ñeneen ñu ngi am bag toog kii lay jaay frigo bii la yor di jaay radi ki taxawoon nii de radi lay jaay te am na bag bu yàgg keneen ak keneen ñeneen ñii nii ku ci am na ñii ñëpp am nañ mii am na ba ñii am nañ bag ñëpp te kenn liggéeyu ci mouvement tekki nag ah tekk la ñëpp ku doom ndey ak baay ju ne ku ne sa doom tekk nga bëgg waaw kon nag tekk bii nga nga nga wax yal na la yàlla defal ba ñëpp tekk ci barke Seydina Muhammad barke sëñ Babacar Si ñu yaakaar te ëllëg waaw maa ngi lay maa ngi leen di gërëm te lii nag yomb itam bu la neexoon itam nga xew ñun ñu xewu ñu doo ñëw waaye nag yaa ngi oyof ñëw ni nga oyofee ñëw ni yàlla nag bu ëllëgee yàlla nga di enu Sénégal ci barke Seydina Mouhamad barke sëñ Si maa ngi leen di ñaanal ñëpp nag maa ngi ca suba ba léegi jigéen ñaa e, def yëf defuma dara man damaa maa bëgg ñii dañ maa ñëpp am bëgg macha allah koñ bi moom macha allah comme xale góor yi mënu ma leen a e, e, kii man doom yëpp laa jiw macha allah ñoom ñëpp ma bëgg su ma nee nii rek dama am kersa si ñoom sax waaw dama am kersa si ñoom macha allah xale góor yi moom dama am kersa si ñoom wax dëgg dañ maa bëgg fuñ may nuyu dañ may dañuy sëgg kenn du ci nuyu di ma di ma xool ku ma ci ne kii di deen wax ne su ma ko ne bu ma dama dama warga mu indi warga jox ma te xam ne am naa ay doom waaye dama koy tooñ ne ko warga sukareel mar naa ko mu jóg di jox ma ko keneen ak keneen noonu keneen noonu ñoom ñëpp macha allah ak dëgg yàlla yal nañu yàlla may fan gu dag wér wala yàlla bàyyi ñu fi ba li nga bëgg yàlla nañ ko yàlla def ci barke mënu ma wax nag waaye nag dinaa jéem incha allah